alhamdulillahi alkarim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala seydina muhammadin barke borom Touba jërëjëfe borom Touba jaraw la ke maam Cheikh Ibrahima jërëjëfe Serigne Thierno Diouf Lambaye barke Cheikh Abdoulaye Diouf eh, Cheikh Bekay ñu ngi nuyu ñëpp ginnaaw bu nu yàlla julli ci seydina Mohamed jaajëfal si Ahmadou Bamba jaraw la kalmaam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla mu yokk leeri Serigne Saliou Mbacke taas nu ci barkeem te yàggal fi Serigne Mountakha ba mu àggalee naalu Serigne ñaan yàlla mu yokk leeri Serigne Sidil Muxtaar ya te taas nu ci barkeem ñaanaat yàlla mu yokk leeri Serigne Thierno Diouf Lambaye ya taas nu ci barkeem te yàggal fi Cheikh Abdoulaye Diouf sunu yaakaar. tey ak ëllëg ba mu àggale naal bi sëriñ Thierno Diouf naalaloon Cheikh Ahmadou Bamba ci kaw suuf ci barke Cheikh Souhaïbou bu Mbàkke eh, laaj nga laaj bu am solo waaye li ñu jublu ci waxtaane loolu nga laaj ñu tuddee ko waxtaanu ab Ndiaye eh, maanaam waxtaanu Cheikh ab Ndiaye te ngeen xam ne na àddina bépp xam ne du yem tey rek eh, ndax loolu nga ma laaj am na lu ne ci ginnaawam loo ma war a laaj ëllëg nu war koo waxtaane te nit ku mu man doon fa nga dëkk la ca gën danga koo war a wone la ca sell danga koo war a wone la ca yàlla bëgg danga koo war a jëfe la ca yónnent bi sopp danga nga koo war a topp la ca alxuraan wax danga nga koo war a def la ca lislaam bëgg sant la ko danga ko koo war a sant ñépp yow mi jiite lislaam waaye ki topp lislaam it dafa war a déglu li ñu koy sant tey jëfe ay ndigal te buñ ko fekk ciy tere nga ne danga ma laaj lan mooy wormaay Tuubaa ak lan mooy jëf yi sëriñ Touba li nu ci xam te yàlla baaxe nu ko te nu war koo baaxe nit ñi bépp jullit bépp doomu aadama bépp bakkan bu yàlla bind ci sunu waxtaan dañu koy tekki la sëriñ Touba waxoon rekk te bëgg ko ci képp ku yàlla bind muy irxam loolu nag soo bëggee àdduna kenn bañ la cee jàmm la bokk la jàmm mën naa am mu dajeeg boroomam ëllëg ngir dafa yàqoon moroomam mu ko gën war mooy mooy war maay Tuubaa mooy nga warmaal yàlla ndax yàlla moo jël Tuubaa dàkkante la ko genn garab gu sax ca àjjana garab bu sax ca àjjana nag kuy féexlu ca ker ga fii ci àdduna waroo faa jëfe lu yàlla tere te wax naa la léegi ci sama wax ne la terrasse boo fi gis ak ngeer la woon Sëriñ Tuubaa ko fàkk Seex Ibra ko gor seex yi ñëw liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba dëkk fa ñépp wàll si tey ku nekk xam ne ci ñaan ak wàll yu la ñépp wàll si te ñaan ak wàlli yu ku ca wàll si waroo jëf-jëfi woyu ndax doo ca am way te ci wóoy rek ngay mujj kon ngeer ga Sëñ Tuubaa fàkkoon tey buñ demee ba dafa fa la yàlla tere woon Sëñ Tuubaa di ko bañ ba fàkk ngeer gi ngir bëgg buñ fi teeraasee mu teral nu kon la yàlla tere woon ba mu jaayee ko bakkanam bul tëdd ci terrasse bi taal fa lu leer reer fekk la fa nga xolli pombiteer la nga congélateur frigidaire fanaan ci climatiseur naan ndox mu jóge ci congélateur lekk lu ànd ak pombiteer fanaan ci terrasse la yàlla bañoon ba Sëñ Tuubaa jaay room nga ngir bañ ko ko def mu bëgg a teral ñépp yow nga terale ko sag ruu xalaatoo buñ la tëralee te lu bon yàlla bëgg ko bidd ko diglewu ko te du ko fay waaye ku ko jëf mu tegal la ko fa lu baax la yàlla defee ba mu àgg ci gën kon soo laajee ne warmaay Tuuba mooy nga warmaal sa ruu warmaal say cër warmaal sa jëf ndax bi nu yàllay bind tàgguwunu te li tag te nu war koo jariñoo moo nu ko tàggantil waaye kuñ tàggee moo tax kon ki lay tàggantil li tag te buñ la tàggee moo tax kon bu la tàggatee waroo tagal daray yàlla ba di ca daje daray àdduna mu di la lor te àdduna kët cheikh be kay na nga xam ne ku fi wàcc surtout dëkk bu mel ni Touba nga xam ne moom lañ dàkkante la garab ga nekk àjjana nga gis ne wax waykat yi ci ci seen xam-xam wax nañ ne tuubaali man jële sa nii fil yow ma tuubaali man ak la ma nii fil xaw ma donte nu lay forcé ba dugal la tuubaa texey war na laa ñeel sàkkantumaa kuy wuyoo mbàkke kon doom gi ci kër gi te bàyyi du bañ doom suñ ba bàyyi nag ak baa ak bàmmeel ak bàmba ak bawal ñoo daje fa yàlla bàyyi ak baa ak bàmmeel ak bawal gébbalu ci bàmba bàmba ba loolu bon ba noppi dal loonu baa kon ki dal baa daa war a tereel ñiy def li yàlla diglewut te neexul yàlla te neexul yónnent bi te sëñ Tuubaa taxu ko woon a jóg sëñ Tuubaa jaamu ba mu doon jaamu du woon ragal sa war a tax mu jaamu du woon bëgg àjjanaa tax muy jaamu jaamu ga mu doon jaamu nun yi xeet wi rek la bëggoon a sowe ngir bu ëllëgee nu bokkaat ci jataayam yi nii nuy bokkee ci jataayam yi fii ci àdduna waaye bokk ci jataayab Sëriñ Tuubaa ci àdduna te sàkkuwoo ci àjjana lu lu neex sa bakkan rek nga ca bëgg ak lu teral say cër te cër yi yàlla bind ko ngir ñu jaamu ko bind ko ngir ñu wormaal ko bind ko yit ngir ñu sàbbaal ko bind ko it ngir ruugi bu delloo ca boroomam yàlla du ca gis lu dul yàlla waaye leneen lu mu ca gis nag te du la yàlla digle woon du lu yàlla sopp loolee danañu ko raxas te raxasab yàlla mën naa fokk ndabal àdduna ginnaaw fii ci àdduna la lañuy wax nen boo defee lu ëpp wala nga def loo warta def wala nga def lu ñu la digalut dañ naa moom ab raxasam day fuqi ndab sàkkantumaa wax raxasam yàlla te nit nag mooy ndabal yàlla waaye mooy ndamal Sëñ Tuubaa moo tax mu tudd daam sanc ndaam taaj ndabam yàlla duyal ko ko ba ku taajate te mu duyal la ko te du këpp ndabal kenn te damawut kon nun lii nu commencé danoo bëgg ñëpp dégloo ko xel te taatan ko ci seeni xol ndax jàmm rekk lañu bëggal réew mi jàmm rekk leenu bëggal askan wi jàmm rek lañu bëggal doom aadama yi Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasulillah nu dey bu nu ciy wax teggin ganu cay àndal ak yar ba ak sutura sa ak jàpp ga ak jàppandi ga moo waral nu bëgg ñépp yërëm nu ngir yàlla déglu ni nu waxe te xam ne lu baax kenn du ko wut ba am lu bon waaye lu bon it kenn du ca sax ba jële ca lu baax te ku ku wéet ak bon xam ne wéetali ko woon baax rekk a gën ndax bon du la xam loo yàlla du la xam loo yónnent bi du la xam loo lislaam du la bëgg loo it lu baax du la soppaloo say bokk du la tere it la mu bëgg te lu bon lu bon rekk la bëgg te lu baax la gën la bëgg te gën moo gën baax te mënoo gën te baaxoo kon ki baax ba gënale ba gën ñépp waruñu koo yemaleeg ña baax rek yem ca loolu laay wax naan si Mbàkke bu nit amee fasu gën bu mu ko dawal ci kursu baax kon mbokk yi li nga ma laaj li ma ci xam kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba kooku yàlla rek a ko xam te bis ci la koy wax waaye man danoo xool ciy jëfam ak ciy jikkoom ak ci bëgg-bëggam ak ci taxawaayam ay jëfam mësta jëfal ku yàlla yónnent bi te àdduna jafandu na ci moom ba tàyyi ngir bëgg a bokk ca jëf yooya mu witti ko sànni keroog ba mu àggee ci yàlla nag la yàlla jëlul àddina teg ci loxoom la cay lore mu soril ko ko ba dootu ko gis la cay jariñ mu teg ko ci loxoom nun nag noo bàyyi li nuy jariñ dem fekk la ñuy lor te Sëñ Tuubaa du ànd ak loraange du seeti loraange du dem ci loraange xanaa ku jóge ci li gën bëgg a dem ca la bon yaa lor sa bopp te sëriñ maa ngi lay wax ne la ginnaaw boo sukkee ci kanam sëriñ Touba wala kanam Alaaji Malik wala kanam Limaamu Laay wala kanam Buukunta walla kanam Ibrahima Ñas wala kanam Cheikh Canaba wala kanam Cheikh Sadbu wala kanam Rawaan Ngom wala kanam Ahmadou piir ku baax ku yàlla ma sa gërëm te nangul ko gërëmam la soo sukkee ci kanamam doo fa ñaan gàttu fan doo fa ñaan dugg sawara loo dul ñaan yàlla nag jarut nga koy jëfe ndax ñaan boo koy def te ki ngay ñaan yor li ngay ñaan te du la ñaan moom te du ma te du ñaan di maye te day maye te du jeexal kon bu la teree moy moom miy maye war ngaa bàyyi ay moy te sax ciy may ndax ki maye may yi moo tere mooy yi te ku sax ci mooy yi dootoo am ci may yi lii nag la Sëñ Bàmba xamoon ba daal di taalif maye bu jur soxna may nga war a siyaare ji soxna may te mokkal maye bu kooku ku ko def dal nga ci poye waaye siyaaratoo soxna may mokkalatoo maye bu tey mooy kooku ku ko def daloo ci point te ku dalul ci point kat dinga xam ne la nga def waroo koo def te ku def loo war te def doo mucc ci li lay lor doo mucc ci li la wër waaye boo defee la la war dangay mucc ci li la wër ba li lay lor bu ñëwee li la wër lay sowe ba du la lor